ربهم وما وعنها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قال من زكاها كبرت صدور بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال له رسول الله اعطى الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فطواها فلا يقال مقلاها الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم Assalamualaikum الله Assalamualaikum Astaghfirullah الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات إنما اختاره الله تعالى وتعالى لكم هو الجامع للسعادة فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازم الخير له من منير لبه وويل لمن خاله إبليس إلى ما شاء إنه إلى ما أقدر أصاب قال الله تعالى إن الكرم هو التقوى فلا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز إن من أدبر عبد الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى بهل مع الوسيلة قال إليه كل ما كان يتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد هذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جال به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وحدق بفضل من جعل بفتح رق بفتح الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصرف بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم غيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم من تبي طيب الطغيان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 wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci bis tedd bii te di leen ci ndokkeel te di leen ci baalu àq di ñaan yàlla mboolem luñ doon def ki lu baax ak mboolem loo xam ne weer wi ñu génn làmboo woon na ko ci aw yiw ak barke yërmande yàlla nañu yàlla dajale ñoo yool booba sunu jotaay bii nek jotaayu feet nek jotaayu sant la tax suñ borom digi won ci nek wor euh, yaa ci fàggoo ak ragal yi ndax amana nga bañ caa fàggoo ragal yalla yobul bobu yalla nañu dajé kon ñi ngi sant yalla bu baax te di leen dokkel ci bis bi di wax ni bis bi bisub sant la bis bi bisu ñaan la bisu bisu la di sant yalla mi nga xam ne tuddu ay xewelam ci doom adamama ba nopi tënkal ko ko ci ak dundam te doomu aadama war a féetewoo sant yàlla ci li ko suñ borom jox ndax ko la suñ borom du deñ ci jaam bi li fekk jaam bi soppiwut aw doxinam yàlla nam daa doxee naka jekk noonu lay doxee soppi ku ko am rek ci jaam bi la inna allaha fa inna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu fekkee ne dañoo dund te suñ borom jox ñu ay xéwal ñu fàttaliku ci taarix la jiitu woon ci histoire ñu gis ni yàlla may nañu ñun loo xam ne mën nañoo wax ni mayu ko woon ñu jiitu woon ci sécurité ci ci aw dëkkin ci aw dundin ak ci aw nekkin la ko waral mooy boo xoolee tey dundu tey jii waruwaay yi tey la gën a yomb dëkkuwaay yi tey la gën a yomb demuwaay tey la gën a yomb ba ca desaatir mooy xéewal yi nga xam ne moom la ñuy xéewloo yépp ci jamono it tey jii la gën a yomb jumtukaay yi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ngir mën a ànd ak jamono yi waxtu wu ne mi ngi tàggatu ci bépp jamono du bees mu nekk xéewal goo xamante ni borom bi subhaanahu wa taala moo ko dimbalee doomu aadama yi kon nag loola am na lu ca war la ca war mooy sant ko te bu baax moom yàlla te xam ne xéwal yi nga xam ne xéwal nañu ko am na ñu jiitu woon ñoo xam ne yàlla joxoon na leen ay xéwlaay amaana egsi wu ñoon fii kon ab jaam sant moo dib cëram te suñ borom it bi mu diglee jaam bi mu dopp ko ndigal la mooy topp ko waaye nag lay tax suñ borom nangu jëfam ja mooy sant ko mooy tax ja suñ borom xam ci jaam bi ne def na la ko war ca diggam ak moom kon nag bu nu xoolee tey danañ gis ni dëkkuwaay tey la gën a yomb. dem waaye yëpp tey la gën a yomb te borom bi wax na ci alxuraan ni wa in taxuddu ni'matallahi la tuxsuha kon xéwal yi ñu yàlla jox nan la ñuy jàkkaarloo moom ci xéwal yi xool ci suñu bopp ndax sant nañ yàlla wala santuñ ko sant nag balaa mën a mat day mel ndamu te sant balaa mën a mat dangay xool gi sa jëmm ni am nga ndolleen nit kii bu fekkee wax na ne mi ngi sant te yëgut ak yokk léegi cant ga cantuk làmmiñ waaye yëgut ci xol waaye saa yoo sante yàlla ci ay xéwalam sant ko ci sa xol jëf jëf ko ñu gis su boobaa suñ borom dana la dool dolli dollag zahir ak dollag baatin dana la dolli ci biir ba yow nga yëg ne am nga ndollin dana la yokk ci biti it ba képp ku la xamoon démb xam la tey xam ne am nga ndollin ndollin loolu nag fekk ak cant rek maanaam moo la ko jox kon nag ñu xam ni bu fekkee jaam bi yàlla jox la ko xewel yëpp moo di ko dund ci àddina nga gis ko te santul yàlla yow bu ko ca ñee ndax borom xam-xam dañuy wax ne ñaar rek moo am ki yàlla jox xewel sant ko ca. benn suñ borom dana ko natt ci xéwal ya balaa génn àddina ma léeg-léeg nga gis koo xam ne dana yor ay xéwal yu bëri te du sant yàlla suñ borom natt ko ci jëmmam wala mu ko ci ay xéwalam natt yoo xam ne danaan lii nu mën a nekke fekk daa sant toon yàlla ci xéwal ko yàlla joxoon wala nga gis ni koo xam ne yàlla jox la ko xéwal ay xéwal yi ko yàlla jox gisoo ci benn yoon yàlla natt ko ci te lépp day day gën a gudd fan day gën a wér xéwalam bi gën a yaatu lépp lu bëgg da koy am amaana yow boo gàttee xam-xam ko ñee ci loola fekk déedéet ak njayal la suñ borom da ko jox ngir jaayee ko ko inna ma nunu lom le dadu ismam wala yaxsibanna alladhina kafaru anna ma nunu lom xayru al anfusihim inna ma nunu lom le dadu isman lol la ci ñom manam la nek ci ñom melni xewal la day yok waxtu wu ne ak njayal lay firiku ta lol ab julit bu ne da nga war am rañé goga kon ak julit la ngay ñeewee sa moromu jam bu mu nek ay xewal yu am yu bari waye ñeewal sa moromu jaam ku wër ak xewal ba nopi diko ko sant yàlla boo xoolee jàngal xuraan yër téere taarix yi danga nga fekk ni am na ci aw xeet ya jiitu woon xeetu aat samuut na giru saba ak giir yi jiitu woon yëpp yàlla mayoon na leen ci ay dëkkuwaay yoo xam ne mayoon leen ci ay xewal yoo xam ne ba nu demee maanaam ba bew suñ borom rikki na leen solal leen balaa nu fitna summil leen balaa nu xewal gi nga xamante ni maam moom lañ solo te loolu la ko waral mooy ñàkk sant rek moo leen ci yóbbu ñàkk sant moo leen ci yóbbu ñàkk sant dara jaru ko sant nag buñ ko waxee teg leen da nga naan sant naa sant da ak eh, maanaam làmmiñ la waaye nag jëf la sant làmmiñ la mooy lan jëf la mooy lan bu la yàlla joxee xéewal da koy dimbale koo gi sa bopp dimbali koo ko gi say bokk dimbali koo ko gi say dëkk ci lépp loo leen nga dimbale ko ko ci ñoom kon loolu mooy ak sant yàlla boo ko defee ba noppi nag si borom soog laa mën a sant ñu ñu ñu joxe ci ñaari misaal yéen bi sallallahu alayhi wa sallam si borom da koo dimbale boo jàngee suratu duha da nga jàng alam yajidka yatiiman fa awa wa wajadaka daallan fa hadaa wa ka ailan fa aghna fa amma al yatima fala taqhar wa amma as saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yooyu yàlla day wan yunus sallallahu alayhi wasallam ay wajirum dundum yàlla yar ko xamutoon yàlla xamal ko mënutoon yàlla mënu manal ko teguutoon ci yon yàlla gindi ko tek ko ci aw yoon bam noppé nak amalan noko ci war kel xéwal yoy ko yàlla jox kenn ku ne xam nga ne yéen bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal yi ko yàlla jox fi nga toog joxe na ko ba mu jeex tàkk ba desul dara ci ba diggam ak boromam moo tax ba mu taxawee ca doj wa wax ne ndax li ma yàlla yónni jotal naa ko julli ñëpp dañ ko wax ne ko bàyyi woo ci dara jotal gu mu ko jotal moo tax ñun ñii tey ñu toog fii jot ci alxuraan jot ci sunna topp ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem kon mooy wane ne kon jotal na ko moo tax bàyyi bay jeex wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ka la tege xéewal yi ko yàlla jox sant ko sant googa nag day daal niru ne ak damu la waaye sant yàlla goo xamante ni maanaam ku la jege ku ne day xam ni cant ki foofu lay taxawee kon sant foofu lay taxawee xoolal Seex Ahmadul Bamba xaadimu rasul natt yi ko yàlla teg ci jaaruwaayam ci ay jëfiinam ci ak dundam diggam ak njabootam diggam ak bokki taalibe yi diggam ak ay dëkkam diggam ak ay noonam amut lu mu ca dund ci dundin loo xam ne dunduk teey bakkan la dundin yépp lu kenn dund fitna la ak natt ak ci tiis boo ko ci yàlla fayee ak fay fay goo ko ci yàlla fay lépp da koo dëxal ñu def ko ak cant lépp defaat ko mu nekk ne ak xéewal dellu ci jaam yi doo ko xoolee moom ci boppam jariñoo wu ci jariñoo ak saahir gu ñuy gis lu dul njariñ la ko yàlla fay mu jariñ jariñ gum jariñ jaam yi kenn fekku sëñ bi ci kër yu rafet kenn fekku ci ay warwaay yu rafet kenn fekku ci ak dund gu neex te li fi nekk ci ay xéewal lépp ci njaboot gi ak ci taalibe yi moom moo leen ko fàggul muñ gum ko muñoon moo tax yàlla fay ko ko moo tax ba nga ko ko yàlla fayee taalibe kilifa yi mën koo jariñoo kon loolu moo di cant balaa mat day fekk yow nga jëf ko ci sa xol jëfal ko yàlla seeral ko jaam yi mu soog a mat sëkk sant cant nag day ànd dimbalante dimbalante nag mooy wa taawanu alal birri wa taqwa dimbalante ci ragal yàlla te ba ngeen dimbalante ci ak noonu ak bañante ndax suñ borom moo ñu digal ñu dimbalante aay bi nag dafa làmboo ñaar bu ñu waxee albirru lépp lu baax ci la dugg dimbalante ci jëf yu baax yi ak bàyyi yuñ si yuñ tere yi ba noppi wattandiku buñ waxee wattandiku ay bàkkaar buñ dimbalan ko dimbalante ki bàkkaar day tere lépp lu ñuul ak jalgate ak lépp lu ñuul ak mooy yàlla bokk yi dimbalante ki lu baax lam booy ne lépp jëf ju baax ci dafa defar société bi diggante jàngal leen xam-xam bu leen jariñ moo xam xam-xamu mekki la moo xam xam-xamu ndox la bépp xam-xam boo xam ne buñ mën a jariñoo ci àddina la nit ki xam ko jariñ ko ak askanam loola bokk na ci dimbalante gi ci yàlla ak wattandiku aw ay ak xam ak xam le dëgg ak jëfe ko ak matal àq yi ci nit ñi ak matal àq mbindeef yi ak dépensé li la yàlla jox nga dépensé ko ci ñi nga tane ak xool ñi borom aajo yi nga dimbali leen ci seen aajo ak xool ñi nga xam ne am na nañuy bor te tane nañ di gor yoo xam ne mënuñoo wax seen bopp nga dimbali leen ci seen aajo dimbali leen ci taxawu leen ak gis koo xam ne daana génn di di féex di moom boppam nga jékki-jékki gis ko mu fatu xamoo lu ko tax fatu amana problème la nga waxtana mom ba xam la ko ba xamatu liggantil ko bam mu boko na ci al birru al birru wa taqwa boko na ci wa taawunu alal birri wa taqwa boko yi yooyu ay xet dimbalante la boko na ci dimbalante fek ko xamanteni ko aajo aajowoo ndimbal la ben yoon da ko dab wala mu am jafe-jafe ñu diggale ak mbokam nga fexe ba bañ bal ko wala nga fexe ban génn ko jël ko awukaa taxawu ko wala ñu daan ko ay daan ju dis ci mom nga fexe ba teggil ko daan ya bokk na man yasfa safaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha boo ko defee loolu bokk na ci dimbalante bokk na it maa yoon si yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne isfa'u tu'jaru ràmmu leen ndax ndax ngeen am aw yiw kenn ku nekk fi nga toog mën ngaa dimbale sa morom ci loo ko tanee bokk na ci may aw yiw taxaw aw yoon yoo xam nit ñi dañ ciy jaar ak di tabaxi jàkka tabaxi daara ak di bënd ay teen ak di defar barab yoo xamante nit ñi dañ ko jariñoo moo xam ay marché la ak yeneen yu mën a doon ci jumtukaay taxaw ay usines yoo xam ne nit ñi dañ koy jariñoo julli ñi di ci liggéey wala réew mi di ci liggéey di ci mën di jariñu bokk na ci albiru wa waa ak yéwénal ab diggante fekk diggante bu yàqu ay nit ñu réeroo ay diggante wa askan wu jaxasoo nga fexe ba nit ñooñu génn konte ci seen bopp loolu bokk na ci albiru wa taqwa kon fekk nit ñuy xëccoo wala ñuy wala ñuy xuloo ci seen biir nga fexe ba la ñuy xëccoo nga liggante ko teg ko ci aw yoon wala la ñuy wala la ñuy xuloo nga fexe ba jeexal loolu aw ay ay wooyo nga fay ko bokk na ki albirru wa taqwa bokk na ki dimbalante ki ragal yàlla bokk na ki dimbalante ki njekk lu yaatu yaatu la abi hurayrata la anhu dafa nettali yéen sallallahu alayhi wasallam nee na ndax du ma leen xibaar loo xam ne moo gën ci daraja ci koor ak ci julli ak saraxe ñu ne ko anka yow yow yonente bi yàlla bi mu ne xanaa yéwénal ab diggante boo xam ne dafa ñaaw yéwénal diggante bu ñaaw bokk yi xool leen tey jii nit ñi liñ gën a sawar mooy yàq ab diggante yàqat digënté nit ñu bari ci lañ gëna sawar képp koo xam ne fexe nga ba digënté aw ay nit ñuy ànd nga fexe ban tàqale ko wala nga fexe ba nit xéewal gum doon am nga fexe ba xéewal ko dog te fekk ci wala bàyyi wala nga fexe ba nit aw askan kóolatagul amoon nga fexe ba kóolate ko dog jarutul ngay jàmm yàlla ndax lépp loo gis ci kaw suuf yiw saw yiw maanaam dañ koy delloo ne nga xam ne nga amee ak maanaam tooñ gi nga tooñ yàlla tooñ gi nga tooñ sa morom jaam moo ko ëpp ndax yàlla saa yu ko tuubalee bëccëg guddi mën na la koo jéggal say moromi jaam nag saa yu leen tuubalee jàkkaarloo ñoom jàkkaarloo ñoom jéggalu a jéggal la ci yéen sallallahu alayhi wasallam jàngale yàlla nañ ci yàlla musal mooy la nga defoon ci lu baax lépp dañ ko sippi ci ña ko ameel ñoom lañ am ci lu bon lépp ñu sippi la ko yow bu ëllëgee fasaara xamluhu dalu xam day mujj sa yéen ba nekk yéen bu diis boo xam ne doo am dara loo jëme fenn lu dul ci mujjuwaay bu mu ñaaw yàlla nañ ci yàlla kon bokk yi lii mooy li nga xam ne jàngate nañ ko tey ci xutba bi jàngate ko ci ab yóbbal boo xam ne war dañ ko yóbbaloo ci koor gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def lu ñu tawfeex ñu teew ko dewoon yu bëree bëree bëree bëri te yàlla nangul ñu suñ jaamu yépp di ñaanal yàlla suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Palestine suñ mbokk yi nekk Palestine nga xam ne ñu ngi ci ay natt ñu di leen rey di leen bunnu xataal di leen teg ay daan yoo xam ne teguut fenn fekk lañ seen biirum réew fekk lañ seen dëkkuwaay fekk lañ seen jàkka di leen rey di rey jigéen ñi di mag ñi di xale yi te teguwul fenn ña koy def ay noonu yàlla lañ yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na leen yàlla rëbb na leen nit ñu baax ñëpp rëbb na leen bisañ ci bés yi julli ñi daan leen not not goo xam ne sunna la te hadiis la yonent bi sallallahu alayhi wax na ko am nañ yaakaar wax yonent bi sallallahu alayhi du fanaan àll te am na président bu ñuy wax Erdogan moo jiite Turc julli ñu bëri am nañ ci moom yaakaar ci taxawaayam bu fekkoon na njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci njiit yi ñoo ñoo jiite réewi jullit ñi am nañ taxawaay boobu l'islam du xoñ du du néew doole fenn ndax tey boo ko xoolee ci suñu réew mii kàttan gi nu amee bu fekkoon dañ koy jàng di ko jëmale ci bëgg-bëgg askan wi su boobaa de danañ xam ne sunu bëgg mooy lépp luy néewal doole lépp luy xañal aw askan doole rawante nag sa mbokku jullit loola dañuy taxaw jàmmarlu ak ñoom te tey ji bu ñu yàlla mayoon kàttan danañ taxaw ci seen mbokk ya dimbal leen ki suñ man-man bu fekkee alal la koy def bu fekkee doole koy def. mënuñ ko nag ñi ko yàlla ya nañ ko def comme ni ko président président Erdogan Erdogan defe yàlla ya yàlla ya taxawal ko te nangul ko ab liggéeyam te yàlla naxatal Israël naax saayal ko te képp koo xam ne yaa ngi gàcceel l'islam wala nga jubloo gàcceel jullit ñi yàlla yàlla gàcceel la ba faaw te not notal jullit ñi ki taxaw ba faaw te di sant yàlla bu baax di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk fii di leen seeral ni am nañ mbégte am nañ kontante am nañ tax am nañ ak cant ci dëkk gi ak boole gi ndax boole gi na yàlla boole lépp rafet na tey ku ñëwoon fii ci daje bi ñu fi mujjee daje nga ñëwaat fi tey da fi gis ak soppiku soppiku gi nag la ko waral mooy dëkk gi ñu yàlla boole dañ ñu bokk di defandoo